bon dañu tëdd ñetti weer wala ñaari weer ak lu teg garas garage la comme yeneen garage même bu nekkul garage comme yeneen garage tamit ñun dañoo war a liggéey comme morom que am liberté ñii mun am liberté man ci ça anormal lima ma jot dégg li ministre wax ñi am licence wala ñi nekk si garage kese lay bàyyi ñu def ñun tamit ay doomu réew mi lañ dañoo liggéey comme ñoom xamuñu moom fii ay caaxaankat newuñu fi ay magum jëmm ñoo fi ay père ñoo fi libéré rek ñu am jamu mais bu tegee ay conditions yoo xamante ne carrément ne nii conditions yi adéquate na comme ni ñu ko mën a dundee ñu ànd ak moom dem suñu yoon loolu problème lu mu bëgg mën nañ si dem mais le important xam mooy lan ñun nañ ñu bàyyi ñu dem Mbour rek wala Thiès mais bu taxee mu ne lii la bëgg dañ koy defal loolu. Euh, parfois dañ duñ ñu calculer non seulement ci transport bi or que mu neex mu naqari ñun ñoo ko yor donc dogal bi wàcc na vraiment kontaan nañ ci. pare nañ pour que lépp loo xamante ne si. nee nañu ñu defe loolu ñu defe ko noonu mais aussi nañ ñu gën a dimbali tey bu ñu identifier ñun suñu oto boo ci liir catégorie am set moom moo ciy am donc bu fekkee kooku da xëy ne ko mënatoo yab set am na quelque yoo xamante ni si aussi dinañ ko jox non seulement du yokk paas mais personnes yi ñoo ñu foog ñu am ñu leen complété matukaay yi jël rek mooy gis nga léegi bi ngay ñëw da nga fekk man yónnee préfet ben SMS pour mu recevoir ñu rapidement parce que ram amna ci lo xam autorité bi mo mo mo moo mën jël arrêté mo ci mën japp moy que ne d'abord bép auto bo boo xam da nga def transport da fu loko def ci yoon da ngay arrêté maanaam bép auto bu def transport irrégulier ci ci commune bo la ci département bi moom da ngay arrêté lolu mom da ngay arrêté parce que lolu du sumay du sumay wax man yag na ko xex waye ko man duma duma duma ma du ma am détenu waaye tey kilifa nga xam ne ñoo nga transport ak kilif nga xam ne mo moo nga ko biir réew mi ñoo bokku dogal dogalandoo lolu loolu muy bu jëkk bi bi ci topp tam kenn du jël oto ci mbedd kon léegi li ma njëkk instruire sama waa kër yi mooy nañ daal di dem ci préfet léegi désencombrement bi ñu tàmbale woon ñu àggale ko balagaas ba mu set fexe ba tableau yi ñu samp ko identifier mboolem li ñi nga xam dafa nekk Sénégal nañ ko préparé léegi parce que oto yi fi lañ jëm si kon xalaat nañ ni lu yàgg bëgg la mu nekkoon ay jafe-jafe mais ak Covid bi ak situation bi danañu permettre ñu mën a dekkal gaaru cër bi képp ku bëggatee voyagé ñëw ci gaaru cër oto dans toute sécurité dem ba fa nga yegg nga xam ni euh, waxuma la sax euh, Euh, di nga profité wala dépister sa bopp dañoo euh, nekk genre petit centre de dépistage parce que ku fi jaar ku ne dañu xool ba xam am nga doomu jàngoro wala déet waaye aussi dafa gën a wóor sa ko tey euh, sa bagage bu réer lu nekk maanaam maanaam daal jël oto ci mbedd daal dafa wóorul te je crois que lii dana tax ba ñëpp comprendre ko noonu ñëw ci ñëw ñëw ñëw vraiment ci gaaw di fi jëlee oto.